ah debout non bàyyi ah, ma toog rek. waaw asalaamaaleykum. maa ngi maa ngi ñuy ñëpp ah, encore ah, jërëjëf eh, Imam Sarr di kontaan lool sama sëriñ sama xarit moo nekk sama wet Sidi Ahmed yàgg nañu lool ndax ñoo bokkoon école primaire ñoo ñoo jàngandoo école primaire donc euh, waroon nga bokk suñu délégation nag ñu dem assemblée nag ah, <laughs> ay sëñ Mansour moo xam naa ne du ko bañ mm-hmm. du ko bañ sëñ bi kontaan nañ toog mm-hmm. honorable euh, député sëñ Mansour suñu collègue la vice président assemblée nationale nekk na ko xam naa ne xat-xat yi rek moom moo tax mais évidemment il est il est partie prenante euh, il est co-auteur de de la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 devant l'Assemblée nationale dégg naa dafa tukki en tout état de cause de bureau doit se réunir pour examiner la proposition de loi et admettre son que, que c'est recevable léegi nag procédure bi expliqué nañ ko donc on va suivre ba ba ñuy dem plénière à la plénière nag le peuple est invité parce que c'est ouvert ñëpp ñëpp mën nañu fekkee plénière euh, assemblée nationale ci règlement intérieur bi la bokk am nañu droit fekkee ko Euh, loolu loolu loolu ci règlement intérieur bi la parce que les députés sont des envoyés du peuple loolu laa bëggoon wax yéen gërëm leen sant